Assane Gueye sénégalais yi amuñu yëg-yëg ne ñu ngi ci karange loolee di lu tukkee ci gëstu maanaam enquête bu kuréel gii di afrobaromètre observateur xëy fësal résultat ya sénégalais yi ñu ne téeméeri jël juróom-benn fukki ak ñett dàqunu xalaatub ñu song leen ba ci sax ak paate seeni biir kër enquête bi ne àll bi nag dëkki kaw yi ñoo gën a ñàkkum karange sunu ko méngaleeg dëkku taax yi ñàkkum karange googee ba ci ay sifaate ay bund xalaatee ngir sëy ana nag lu ca nguur gi jéem enquête bi ne juróom-benn yoo jël ci fukk ya danoo jàpp ne état sénégal na muy xeexee ñàkkum karange kaaraange googee du li gën maanaam ci gàttal baaxul le tee mooy ne ak raye gi ci anam yu métti naka noonu it wayute gi fu ne juróom-ñaari doomu Sénégal yooyu jël ci fukk ya ànd nañu ci ñu indiwaat atte buum bakkan maanaam peine de mort le témoin ni ko naata ngoom observateur defee jàllale résultat yi enquête afrobaromètre askan wi ñenn ci ñoom gis ne ñàkk xëyum ndaw ñi nag bokk na ci li yokk ñàkkum kaaraange googee le quotidien moom jàpp ne googeeg ñàkkum kaaraange ñi ci a loru ak wayute gi mooy ñi dëkkee boori Kédougou Saly Portudal wala Daara Jolof li ko waral ci activité économique yi yënguy koom-koom yi ñu nemmeeku ci gox yooyee le soleil moom lu mu xëyee mooy benn ci njeexite yu bon yu ayu Casamance bi jural askan wi rawatina tu tànk ya yéene kaay bu ànne ba ay wi jollee ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre 1982 askan wi ñu bari ci ñoom ca fare woon ci département Ziguinchor ak Bignona danoo daw ba seen kër ya ginnaaw ak i dëkkuwaay macha allah dal dellu si na bu baax ci diwaan ga waaye léegi xale yi nga xamante ni ñoo juddu ginnaaw seen jafe-jafe mooy këyitu juddu amuñu ko ca nag muy lu munta ñàkk ngir seenam njàng màggal xëy ne Ila tubaab bi macha allah bakkan rotu ca la ko waral bokk na ca matuwaayu waa autoroute bi jël ci lëngoog Ageroute waaye surtout gendarmerie rawatina ñoom gendarme yi nga xamante ni ñoo jalone yoon wi yépp ak i matuwaay naka noonuy jumtukaayu wàññi xeluk dawalkat yi yéenikaay bi ne li ci ñuul rek mooy benn bis bu mbëkk ñaari ambulance gaañ fa ñu bari ba noppi daw wàllum wér-gu-yaram ginnaaw coronavirus gi siburu bi ak nawet bi sud quotidien ne jamono yi siburu bu nuroo looli mandarga ak bi mooy daw ci réew mi ca nag tout tànk yi di gone yi la gën a jàpp waral titange way jur yi naka noonu it waa kër docteur noppalatunnu mbas mi di coronavirus bi nag bu ñu moytuwul dina nësaxal koom-koomi Afrique yi ak jéego yañ ca defoon yépp suñ ci taxawul yeesluwaat jëlaat yeneeni yoon muy kàdduy ministre Amadou Hott ministre de l'économie plan ak coopération mu ngi ko waxee ci kaw bi muy jiite quatrième édition forum banque africaine de développement ngir xool lu yokk ndëgër laay Afrique ak mbas mi wàllu politique ak coalition Askan bi Serigne amee ci teewaayu Bamba Fall meerab Médina Khalifa Sall ci kàddoom ci yéenekaay bi ne aji politique bu ci foog ne yow dong mun nga xalaat taxawal projet de société xeltu jëf ci place u askan wi nax nga sa bopp Serigne Mansour si Djamil moom dafa gis ne Macky Sall mooy Sénégal gu tuut gi gu tuuta tuut gi wàllu sport record xëye gaynde football yu Sénégal yi defi jaloore ci Ligue des champions bi Idrissa Gana Gueye di lakkali caax waa Paris Saint-Germain ca wet geneen nga Sadio Mané di dugalal xamante ni ñooy waay Chelsea ñuy dajeeg Juventus bu 19h lay doon wàllu làmb ji moom sunu lamb wax ci lamb bi 28 novembre 2021 gi diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier yéenekaay bi jàpp ne Balla Gaye ka muy dajeel mooy njuumaam maanaam ndubin barayoon maamam di Bombardier yéenekaay bi jox na kàddu it booy Niang 2 muy ñëwaat ci jaar-jaaram cachet bi ñu ko njëkk fay ci làmb ji ni ñaar fukki junni ak ñeent ak it defetam bu njëkk ci làmb ji mu ne booba guddi gi yépp nelawu ko NCA assurance